jërë ngeen jëf salaamaaleykum mbokk yi seetaan wasaare làmb ñu ngi leen di nuyu amati kontaan ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ni ñu koy defee saa ne ñu ngi fii nag ci ngor bu ñu nee ngor seet si fi kenn koo xamante ne xale la dafa bëre mercredi bi passé ci journée bi nga xamante ni Petit Production moo ko tëggoon boole ñaari ndaanaan muy xeeru ngor numéro 2 mi nga xamante ni bu jógee yoof wakaam ngor gépp jóg topp ci ginnaawam mu doon bëree xale boo xamante ni tamit champion la ci làmb muy ki nga xamante ni mooy boo yëmbal tey mu am loo xamante ni jot na xew ci seen diggante boo yëmbal daan ko jël bu amul benn werante ndaysaan moom si xeeru ngor numéro 2 mu ngi nuy toog sama wet waxtaan na neex borom këram si xeeru ngor maa ngi lay nuyu. waaw maa lay delloo ziar di wax auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ma sant yàlla julli si yonante bi sant samay ñaari waajur di sant sama sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu maa ngi nuyu waa Ngor gépp di nuyu waa àdduna à travers Wassare Lamb. kan mooy Xeeru Ngor numéro 2. waaw Xeeru Ngor numéro 2 benn tout tànk la bu juddoo Ngor yaroo Ngor fekk baax Ngor xam mooy loolu daal def li xal yëpp di def comme ni ma gars yi defee tafes gi jàng làmb tarbiyu ko ba tey ñu nekk ci di ci yëngu. lan moo la dugal ci làmb. waaw làmb li ma ci dugal sama benn grand bu ñu naan Ndiol Ngor moo njëkk a bëri ay wàllu bëri dóor fii nii si Ngor ba muy ma mbapat man maa daan toog ay ci mbukaayam ay 2007 2006 boobu maa gën a nekk tout tànk ma nekk si ne toog ay cumbukaayam ba muy bëre arène may toog ay cumbukaayam ba muy bëre ak Mbaye Guèye Junior maa toog cumbukaayam amour boobu nag moo ma si yóbbu woon ma dem ba xam ne lii kat yàgg naa si te mën naa ko ma ne pourquoi pas ma def ko loolu moo ma si dugal. bi ciy dugg say mbokk àndoon nañ waaw comme ñëpp rek parce que yombul daal waajur di gis doomam muy dóorante. ba ma dugg metti woon na sama yaay doon na bañ sama doon na bañ mais xam nga rek liggéey te tamit dañ leen bëgg teral buñ demee ba xam ne bit bi pour teral leen la dañ la siy jàppale. waaw métti woon na au début mais instant yi alhamdulilah. Euh. ñaata combat nga bëre mbapat. bëri naa ay combat yu bari mënuma ko compter mbapat moom li ma si bëree mënu ma ko compter wax dëgg na yàlla waaw. daan nga dem ay mbapatu nommé nii nga dem bëre ji. waaw mbapat nommé bëri naa si lu bari yooyu moom li ma si am si drapeau tamit bari na trop mais bëree dem tournoi laa gën a def que bëre nommé tournoi laa gën a def. nga jékki-jékki dugg ci jóge ci Mbapat dugg ci arène ban année nga dugg ci arène. Euh, maa ngi dugg ci arène bi 2014 le 20 avril 2014 mooy sama premier combat arène. nga bëreeg kan. ma bëreeg benn waaye bu ñu naan jokkeer mais arbitre mu jëwul sifflet parce que ñëw ba esaat arbitre bi ne ko parce que jamono yooyu noonu làmb yi da nga daan ñëw ba esaat door a gis sa adversaire bi ñëwee esaat mu gis ma mu ne du bëre gars yi wax wax mu ne du bëre arbitre bi woo ko mu bañ après ñu jox ma victoire noonu lañ ma joxee victoire ba léegi sëgguñu. lan moo taxoon mu ne du bëre. waaw amaana am na lu mu gis loo xamante ne gars yi gisuñu ko. parce que ñun boobu ñuy demee fugu xale. waaw mooy loolu daal xajam fépp. waaw. ñaata combat nga bëri arène. waaw bii passé ni mooy sama douzième komba douzième combat. mooy sama douzième combat waaw. noo def ñaata victoire. huit la am boole naas bii passé huit victoire la am. quatre défaites maanaam nga amoon bii passé nga boole. waaw muy huit. balaa ñuy ñëw ci bii passé kon maanaam am nga sept victoire. am naa sept victoire. Mm. Euh, léegi sa combat bi ñu taxaw seetlu sa combat yàgg boo yëmbal petit moo tëggoon combat bi ñu dem ba ci bis bi ñu dégg signature contrat bi indi nañ ko fii ci Ngor boo yëmbal bañ ne du ñëw ci signature bi bi mu ñëwulee ci signature bi gisoo ko loo yëg. non man bettu man xamoon naa du ñëw. parce que biñ njëkkee wax ne signature bi ngor la man xam naa ne du ñëw mais man dama jàpp ne làmb euh, làmb rek lay doon du ma sa yoosu làmb te ay tout tànk lañ promoteur bi wóolu ñu gis suñuy performance yi ñu def ba tax mu jël xaalisam fay ñu ko pour ñu bëre grand combat gënuñoo siiw si xale yi ëpp ñu fi mbooloo daaxuñu fee bëre mais bu buñ la wóoloo jox la seen xaalis c'est pour nga neexal man signature bu nekkoon biir néegam barke Baye Niass damay dem parce que gëm-gëm bi du signature bi. li ñu war a bëre si biir géew ba la kon waroon na ñëw pour ñu gën a jaay bés bi yee man loolu laa gis mais comme ñëwul tamit mënu ma ko woon wax dara parce que tamit dama koy comprendre amaana moom foo la tegoon làmba ji mystique wala dara mais làmba ji du woon mystique entraînement la yee. kon ni nga waxee bu combat bu bu signature bi nekkoon biir kër boo yëmbal di nga dem ci yëmbal bëri signé ji ko. barke Baye Niass bu signature bi nekkoon biir yëmbal biir néegam billaahi damay dem loolu laa gëm. nga ñëw keroog yaag boo yëmbal ci stade bi ma gis benn confiance bu rëy gis mbooloo bu bari bi nga mobiliser mbooloo bi fu ñu la toppee. waa mbooloo bi toppee ñu ma fañ fudul ngor wakaam yoof mbapat yi may bëree parce que ngor wakaam yof dama ko tëj damay bëri mbapat dama fay def loo xamante ne bariwul samay moroom yi ko def. yee parce que dama fee wane sama bopp nekk tout tànk nekk lu little boy nekk benn boy bu sew mais su ma dajee yow loo ponkal ponkal buñ paree nga jox ma loxo loolu laa tëjee fii xam nga dugg bëri arène ñëpp naan dafa teel boobu maay nekk tout tànk ñëpp naan dafa teel dafa teel ma ñëw bokk ci révélation yi année 2014 def 3 combats 3 victoires ñu xam ne nag xale bii nii buñ ko jàppalee lii ñu gis ci moom. mën na doon champion loolu lañ ma toppee te ñu ma topp ñëpp samay xarit lañ samay morom lañ sama génération lañ ndax ñëw ñooy nekk suba ngoon guddee bëccëg. nga ñëw sa combat yaag boo yëmbal. arbitre bi sifflé ngeen dem ci digg géew bi noo bëree combat bi keroog. waaw man amaana am na lu ma waxoon si open press bi parce que newoon naa leen bu dee fecc maa koy neexal bu dee feesal stade yi maa koy feesal bu dee xeex maay xeex bu dee bëre maay bëre te yaakaar naa ko si daan làmba yi ku nekkoon stade xam nga ne li ma waxoon yëpp def naa ko dama ñëwoon pour confirmer li ma wax. parce que wax naa ko benn instant ñu ma ne ma xeeru est li nga toog biir ngor moo tax ngay wax li ngay wax mais dama doon wane ne li may li ma doon wax gëm-gëm te man su ma waxee dara doomu gor laa dama koy sàmm ba far ba kar muy àgg fa mu jëm. noo bëree keroog. damaa ñëw def li ma wax ñëw duma ko. daan ko. arbitre bi sifflé na xeeru ngor numéro 2 ak euh, Boy Yëmbal arbitre bi sifflé na sëñ Bass nan nga bëree combat waa waaw arbitre dafa sifflé ma arrière jat ñaan taxaw déglu ko parce que am na lu mu waxoon ne na bu ma ñëwee mu dóor ma daanu taxaw naa déglu ko benn 30 secondes gis naa ne kii parewul pour def dara ma dox wuti ko mu arrière mu wuti ko ba si saako yi mu arrière. ma dóor ko ku mu daw songu ma bu njëkk bi dem naa ba sori si ngembaam sax ba mel ni ku ko takk mais dama dem bay glissé mel ni damay daanu te foofu saaku la ma waat ko parce que xam naa ne amul doole bi ma ko jàppee xam naa ne amul doole yàlla moo tax may wax dama ko bàyyiwaat benn loxo laa roccee ko ak moom nii laa def mu bàyyi ma raxasawaat suuf dollewaat buum sa booy booy ba mu arrière ma dóor ko ñaari kuyu dal mu bëgg a jeexal làmb bëgg a jébalu si bëre bi mooy baax mu daw jël ma ma remplacer ko dugal sama beneen loxo si wet gi jàpp ngembali fi ma jàpp beneen bi nag moo sori parce que beneen bi jàpp naa presque si ginnaaw fogewu ko dafa dama jàpp rek fi muy téeri tatafu ma caxabal ko mu toog jàllale ma. ari bi nag doomu aadama la day juum. dafa toog dafa toog. Mm-hmm. jaaxaan sax presque la def. Mm-hmm. mais arbitre bi doomu aadama day juum. Mm-hmm. juum na man d'accord naa arbitre dafa juum. mais adduna yëpp xam nañ ne xeer ngor moo daan boo yëmbal. ku yor ay bët di gis xam nga ne xeeru nga mu daan boo yëmbal waaw loolu dafa leer. léegi xam nga li la yoon may. waaw li ma yoon may def naa ko parce que xale laa dama nekk si yoon te am na fu ma bëgg a dem sama palmarès du ma bàyyi dara mu koy tilimal daan naa ko adduna xam nañ daan naa ko foofu rek doyoon na mais sama waa kër dañoo bëgg a gis po bi. léegi dugal nga rek. dugal naa ko. ñu ne kañ lay nee na ñoo ma déglu leen su génne dinañ ma woo sama manager mu ngi liggéeyandi loolu. léegi da bëgg boo yëmbal indi drapeau bi ndax drapeau bi mu jël drapeau xelu ngor la. sama drapeau la moom bu toogee këram dina xam ne li mu jël nii moomu ko ay mbokkam yi àndoon moom si stade bi barke laa ilaha illallah am na ñoo xam ne dañuy taxaw naan ñun yëmbal lañ dëkk mais xeeru ngor moo daan loolu lu ko gën a leer amul ñu nekk stade bi ñëpp policiers yeeg ñëpp bi sud bi amee ñëpp dañ ne arbitre bi làmb ji jeex na mais arbitre c'est le maître terrain. mënoon naa bañ a bëre mais sama fin de xajoon na si parce que su ma bañoon a bëree mën nañ ma suspendre te man damaa bëre ba tollu fi yaaxuma làmb du ma ñëw ba tollu fii di yaaxal sama bopp damay bëre lu ma yàlla jox ma jël mais ñaari ndam mooy dugg benn mooy génn te daan naa ko ba pare pare woon naa pour daanaat ko mais amaana loolu la yàlla namoon parce que li ma def si stade bi jour boobu noonu noonu rek la ma doon demee. kon dafa mel ni benn ndam nga indi woon moom nga joxe. benn ndam laa indi daan naa ko. kon amatuma lu may prouver yee mais bëriwaat naa si jom ak fulla parce que deuxième round bi dóor naa ko dóor yoo xamante ne bi mu bi mu ma daanee drapeau bi jëlu ko dañ ko ko jëlal parce que dañ ko muuru muy génnee saat bi parce que dóor naa ko dóor yu metti foofu bu mu gaañu xam mais nag làmb la waaw bëri dóor lañu wax donc lépp lu mu laaj dañ koy def loolu moo waral loolu mais tamit maa ngi koy encouragé parce que champion la mobilisé na préparé na combat am dem na Gambie entraîné na def na li mu waroon def yëpp. mais dafa di ñu dañoo nekk ay ndaw nekk sa yoon nekk ay xale yu ndaw am doole man bëgguma di bëri ay mag samay moroom laa bëgg di bëreel. ngay jël boo yëmbal danga koo xamoon. xaw ma ko woon jour boobu sax laa koy door a xam biñ ma ko joxee si laay door a am ay photom jour boobu laay door a seetaan ay combat YouTube parce que dama doon dégg turam rek ma seetaan ñetti combat am rek laa seetaan si YouTube bi ma xam ne kii li ma li nekk si man xajul si moom wax naa ko si signature bu njëkk bi parce que combat bi biñ ne une semaine avant tabaski la taxaw boobu laa ko waxee nee naa ko boo yëmbal boo taxee ma doon nga daanu boo bëree ma jàpp la daan la maa la man te gëm-gëm boobu laa doxee ba tay jii bu ñu bëriwaatoon suba dama koy daan. noo def ba xam ni dafa demoon Gambie. Eh, parce que Sénégal lañ nekk nekk si làmb ji suñu adversaire fu mu dem dañ koy lijjanti parce que ñu nax moom ñoo war a bëre bu jeexee nag jeex na mais moment bi war a bëree yow. heure bi ngay tëdd ak heure bi ngay yeewu sax dañ koy xam. boo yëmbal turam dëgg-dëgg naan la. Cheikh Gueye la tudd. waaye maa la ragal. non mais moom la xam na sama tur. parce que làmb dafa toll foofu. kenn mënut fee nëbbu sa tur. mais dafa di nit ki boo nekkee si dara. mu nekk sa liggéey da koy jox aax bi mu yellool parce que ñu dañoo nekkaay ay tout tànk di ànd ak suy morom barki alxuraan man sama staff amu si kenn koo xamante ne mag la te ba ma dalee bëri mbapat ba tey mën naa ñoom ñooy ay xale yu ndaw. su ma geesoo di leen gis day mel ne dafa am lu ñuy def si man parce que ñuy dagg seen yite jël seen xaalis di ko def si man man ñooñ ñooy samay njëkk samay Malick Gakou yu njëkk ñoom la su ma amee dañuy jël seen li ñuy am def ko si. feen doon fi naan bii nii xam nga bi yëpp ñuy fi naan fii dagg seen yitte seen liggéey dem jël seen xaalis di ko def si combat bi rien ngir ma am ndam loolu dafa mel ni ay pikiir yu ñu may jam parce que am na lu may dolli aw ma seen fay ñoom ñooñu boo yi àndal criminels yi ñooñu lay ñooy les premiers cadavres. bu dee am ñoo njëkk a dee ñu amu seen fay barki alxuraan ñoo taxaw nii ñii su ma leen di gis day mel ni dafa am lu ñuy def si man barki Seydina Muhammad ma ñoom démb la dañoo juddundoo yarundoo màggandoo ba tey dama leen di santee loolu bu baax am na sama benn grand frère boo xamante ne dama koy sant bu baax moom it Zalbey day dagg ay yitteem ngir man barki alxuraan te defaluma ko dara su ko neexoon mu ne kii tànk la dama koy bàyyi mu demal boo am mais du ma defee loolu yoon daf may woo ne ma fis li nga def du yoon. su ma defee loo xamante ne du yoon la mu appuyé ma kooku aw ma suma grand boobu Zalbey billaay wallaay di wax ne waa Ngor doomu Ngor lañ couleur Ngor la ñuy défendre déretu Ngor mooy daw suñu yaram te dañ see fier nañ ñu jàppale te dañ nekk ay espoir tollu foo xamante ni dafa metti si làmb muy grand combat yombul te lu fa yóbbu mbër du ay caaxaan ñëw nañ ba yegg foofu am na lu ñu wone ba yegg foofu kon nañu ñu gën a jàppale ñu gën a wane suñuy talent parce que il est l'heure il Ngor am champion. te man suñ ma jàppalee barke Baye Niass buñ ma jàppalee balaa cinq ans ma doon roi des arènes fii laa ko waxee si wasaar làmb buñ ma jàppalee man xeeru ngor numéro 2 balaa cinq ans ma doon roi des arènes billaahi wallaahi talaay parce que am naa qualité bi koy doon te fit bi du ma ko wax jom ji du ma ko wax parce que saa yu may bëre dama koy wane. yee ku ma xam xam ne Xeeru Ngor buy bëre day def fulla ak fayda ak jom ma gars yi jàppale parce que dama koo soxla am na foo xamante ne bëgg naa fa dem am na fu ma bëgg a yóbbu turu Ngor si làmb ne ma jàppale ma yóbbu fa turu Ngor loolu laa bëgg. à part loolu fan nga jëm ci làmb. fi ma jëm ci làmb mooy samay morom bëgguma ñu jox ma koo xamante ne naan maa ko man man su may bëre dama bëgg ñu may jox samay morom. ñu naan lii kat combat soog la parce que loolu mooy yoon bëgguma fekk koo xamante ne bëri na ay dix ans avant man di bëreeg moom loolu rendre ma dara samay morom su may bëreeg ñoom day doon tension. comme ñan. mais comme booy fi nekk ñi fi. bi Barça Real kan la. mais fi ñu toll nii bu dee Barça Real la ñuy wër rek. bulldozer mooy Barça Real bi. bulldozer men. bulldozer Baccheras moo ko daan man maa daan Baccheras. bulldozer gis nga keroog combat bi ni mu def. xam nga neex si moom. dafa am fit dafa am jom te day dëggal boppam nee dafa mën a xeex loolu la gaa yi wax su ma jëlee ma corriger ko jàngal ko ni ñuy xeexee parce que dama gis ay erreur si moom dama ko bëgg a jubanti parce que su ma ko bañul waruma bañ defoo si làmb lu ma deful maa ko ëppi combat ëpp ko ay victoire te am na ko ko daan ma daan ko kon waroon naa ko dépasser. kan la Bathie Seras numéro 2. moo moo daan bulldozer. nga def noonu Bathie kon maa ko war a bañ. kon Bathie Seras moo leen boole. Bathie Seras moo ñu boole moo ma booleex moom moo tax sax ma koy xool mais bu dul woon Bathie du ma ko xool bëgguma bëreex ay mag soxlaaw ma loolu bëgguma bëree benn ancien gloire wala koo xamante ne da ngaa yàgg bëre sama carrière bëgguma si bëree koo xamante ne mag nga ma mag boobu samay morom laa bëgg a bëreel parce que dama am ay qualité te sama biiri morom laa ko bëgg a wane bëgguma ko wane si ay mag eh, parce que dañ may taareel fi ma bëgg dem dama bëgg a baatar samay pour dem bi làmb ji jeexee ba léegi promoteurs yi ñu lay contacter. waaw am na promoteur bu may contacter wax nañ ma ñaari adversaire bëgguma tudd seen tour nag mais dañ ma sut dañ ma sut nañ ma niveau ñu ma niveau parce que jiitu nañ ma si làmb jiitu làmb boo xamante ne tey bu bu leen neexee ñu bañ ma bañ a bëreex man mais man maa njëkk a bañ a bëreex ñoom parce que amuñu turu ma amul mën nañ maa jiitu si làmb mais. pour ñu am ñoo la bañ. non xam naa dañuy bañ. promoteur yi proposé na mais xam naa dañuy bañ. comme ñan la ndax garab ci kaw lay fekkante keroog li nga def bi nga ñëwee stade Diom Iba maar Diop koo bañatul ci làmb mënu laa bañ xeeru ngor fi mu toll nii actuellement ci làmb ku la bañ dalaa ragal. waaw am nañ proposé nañ ma ay mbër bëgguma tudd seen tur parce que tey làmb dafa toll foo xamante ne boo tuddee turu jàmbur day mel ni dafa am loo loo ko waajalal wala nàngam te promoteur daf ma woo ma sa combat diw loo si wax sa combat diw loo si wax. wax nañ wax nañ ma Mamaya. waaw. wax nañ ma Kulifay 2. mais man maanaam xam naa ne duñ ma jël. mais yàkkamtiwu ma leen. yow ñeme jël Mamaya. ak fi Mamaya jóge ci làmb. kan mooy roi des arènes instant bi. Modou Lo. su dee su dee su dee mënuma bëree moom bay ba ma bàyyi parce que man li mu doon man loolu laa bëgg. li mu doon li mu yor man loolu laa soxla donc du ay Mamaya laay bañ a bëreel kon. ma mayaat maanaam xeebu ko mais moom maa koy bañ parce que maanaam deful si làmb lu ma deful sama grand la dama ko jox cër mais li ma def si làmb defu ko te fi mu fi mu nekk si biir saako bi du ma ko jox loxo. ndaan di faal la daan. jour boobu ma bëree spécial bi ma bëree spécial bi daan ñëwaat tey confirmé mën na maa bañ moom mënu bañ mais xam naa ni day bañ mais teguma ko bët fi ma teg bët moo gën a kawe moom. mais bu ñëwee ñu bëre. parce que man bëre mooy sama métier bëgguma combat bu ñu naan bii sorxo sorxo la man derby laa bëgg dama indi di benn par benn par benn laa leen di corriger bañ jeex ñoom ñëpp. sama téléphone mu ngi sonné am na ku lay woo dafa mel ni boo yëmbal moo lay woo. oui allo. champion bi bëgg naa la. waaw mais di courage avant tout waa gis nga. adduna xam nañ ni mu demee kon dama lay encouragé rek di la wax ne nekkaatal say entraînement waaw ndax ki la sut da nga koy woowee njool mi xama ki la ëpp nga koy woowee ponkal mi waaw. bëri nga si fula fayda jom préparé nga sa combat si teg nga ko si yoon ñëw nga man la yàlla may ndam xama mooy loolu. yee noonu la fa demee waaw di courage rek yow nekkaatal say entraînement yaa ma gën a xam boo amaatee combat keneen koo xamante ni bokkuma mu écrire yaa na yàlla may ndam noonu la fa demee waaw jaajëf champion bi yee amul ragal yow ñoo far kontaan si bëggee waaw aha tawfee yee jaajëf champion waaw maa lay jaajëfal di santaat yàlla bu baax julliwaat si sangu-sangay Seydina Muhammad santaat suma ñaari wajur di sant sama yaay di sant sama yaay di sant sama yaay di ñaan yàlla bàyyi ko ba mu fekkee sama njariñ sonn na si man torop te li mu sonnee si man bëgg naa balaa mu fiy jóge ma def li ma man si moom yéene boobu laa am di ñaanal sama waajur bu góor sama papa fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jóge def na si man loo xamante ne tax na ragaluma dara sama àdduna yar na ma nam ma war a yare def si man li mu war a def si man maa ngi koy ñaanal yaa na ko yàlla xaare àjjana ak si di gërëm tamit suma gars yi may àndal waa criminel aw ma seen fay A ba Z seen fay sama biir xol laa leen def ñooñu ñooy man maay ñoom di gërëm meeru Ngor Amadou Gueye Aty jàppale na bu baax a baax a baax di gërëm sama pap docteur Niang borom suma assistance xaalis bu bëri la moom la ma may defaral ma ay blouson sponsorisé ma yónnee ma ay 4 x yi ma yóbbu estaat yëpp moom ma ko jox. ba pare ne ma recours bi lu mu laaj ma def ko génne xaalisam jox ma ne ma loo bëgg wax ma ko ma defal la ko maa ngi koy ñaanal moom moo xam li mu bëgg yaa na ko yàlla defal sama nijaay Karim Ndiaye borom black and white mu lañ tuddee woon drapeau yi maa ko jël drapeau am na ma si biir jàppale na ma si biti yee naa na ma si biir jàppale na ma si biti tra borom noflaay bi jàppale na ma si biir jàppale ma si biti waaw Antougay Samba responsable politique APR fii si Ngor jàppale na ma si biir jàppale ma si biti aw ma seen fay di wax waa Ngor gépp na leen maa ngi tàllaat samay loxo aw ma lu leen gën a foor aw lu leen gën mënuma am lu leen gën tamit ñoom laa am ñooy sama deret nañ ma jàppale sama grand bi Zalbey maa ngi koy remercier waat di ko wax ne na jàpp su ma grand yëpp ñoom Ndoy Kan Dagay ñoom Mamsel xama gaa yëpp ñoom maga xam maa leen di gërëm di leen wax nañ ma jàppale waat bu baax baax. voilà li ñuy yaakaar si man muy roi des arènes incha allahu rabbi bi ma jàppalee juróomi at juróomi at yu mat sëkk barke alxuraan. noo gisee wasaare lamb ci lamb. waaw wasaare bi mu ñëwee dafa yokk wàññiwul man bi ma leen di suivre yàggul mooy ba ngeen interview seen interview bi yéen a euh, dumbul fële si États-Unis mais boo ko seetaanee damaa xam ne ñii dañoo ñëw pour yokk lamb. te boobu ba ñuy gis seeni i pas en avant ñaanal yàlla yéen xam li ngeen bëgg yal yàlla defal lu kaw seen jor euh, salon bi fii mooy sama lépp fii nii man fii laay yendu waaw samay rakk fi nekk. yaakaar yaa ko moom. suma alal parce que fii laay yendu ñi ko moom samay deret lañ donc man lii suma alal la muy Binus boote di wax ñépp waaw nañ ñëw fii ku fi ñëw du ko ci muy góor muy jigéen. lépp loo mënta ko soxla si accessoire si àdduna boo ñëwee fii da nga koy am. boo ñëwee koo fi fekk. boo ñëwee di nga fekk Tata May Tata May mu ne mu ngi fii boo ñëwee di nga fekk abbi mu ngi fi numéro baa ngi nii si kaw xam nga loo bëgg am na fii tout est disponible waaw nii nii rek su ma paree émission bi nii rek reer bi ñu ma tegal ci biir mënu maa wax nu mu mel. doy na waar non doy na man xaw ma xaar la xaw ma ñey doy na waar daal. jaajëf mbër jërëjëf sëñ Basirou maa lay nuyu bu baax a baax a baax am kontaan ak mbégte suñu mbokk internet yi dajeeg yéen gis ngeen wasaare làmb xàmmewul mbër mu mag ak bu ndaw ndax boo gisee ñu déplacé wu ñëw ba fii seet ki nga xamante ne mooy Xeeru Ngor numéro 2 mooy nekk na xale boo xamante ni ku ko jàppale ci làmb mu dem nekk na xale boo xamante ni boo ko gisee mu ñëw ci làmb jëmmi mbër bi mu ngi ci moom wane na jom wane fulla wane fayda kon kooku boo ko amee ci dëkk waa dëkk bi yëpp dañ cee war a jàpp dooleel ko ba lépp loo xamante ni ñu ngi fay séentu mbër mu nag mu am ko yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal parce que làmb moo ciy gagné rek ñu leen di tàggoo tàgg bi nga xamante ne moo dul tàqali ko ba incha allah ci wasaare làmb ak beneen daanaan jaa ngeen jëf.